allahumma bi asmaa'ika albahiyati wa shi'aa'aati alcarsiyati walkalimaati alrabbaaniyati والطلاسم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية وتسابيح اليونانية إلهي برفيع السماء وقوة الأرض وهيبة الشمس وبسر الأعظم الذي بين الظلمة والنور yaa man kasa quluubul aarifina min nuuril uluhiyya wa yaa man arsala riyaaha bushran bayna yaday rahmati ilaahi salli ala sayyidina muhammad salaatan taftax lana biha abwaaba rida ilaahi wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba charri wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'man nasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الجمعة ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد naqulu lakum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci àjjuma ji fooy mën a ne di ziyaara kilifa diine ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziyaara ñi ci hôpitaux yi te wéradi yàlla na leen yàlla delloo seen sago waaye di ziyaara it ñi nekk bitim réew di daan seen doole saa su ne bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal waaye duñu dañ ala kulli xaal di ñaan sunu Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla tàppe xol ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li way sillaahil karim ñu ngi leen di ziyaara mbokk yi ci iidul adhal mubarak ci weeru tabaskiwu weeru màgg wi ñu génn di ñaan teewe ko ay yu bari kenn bañ a manqué lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu yéene biñ ci am yàlla nañu ko yàlla nangul fulal ñu ko def ko ay xewal yaatu bi jaahi nabil karim mbokk yi ñu ngi dellu siwaat kal aada fi kulli yawmil jumaa wa nas xusni mutabaatikum maana fi barnaamijikum tafsirul axlaam fi kulli yawmil jumaa wa nahnu ala kulli xaal kal aadati fi kulli yawmil jumaa fi intidaarikum bi diqqatin wa surur bihadayni raxmayni xaalan xaysuma ittasaltum bina mbokk yi ñu ngi leen di ubbil téléphone yi fas yéene ànd ak yéen ci seen émission 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala waa bitim réew mën na ànd ak ñun ci 00 221 33 841 22 99 haula il arqam حيثما اتصلتم بنا إن شاء na ستجدوننا حاضرا في انتظاركم كالعادة mbokk ngeen mën a ànd ñun ci numéro yooyu ñu leen ci bàyyi xel balaa ñu ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom yónnee ko di ko laaj ñu bàyyi ndi xel ci numéro yooyu ala kulli xaal lillazina yuriduna an yattasiruna xaalan incha allah ci ñi nga xam ne ñu bëgg nañu ànd ak ñun ci ci téléphone yi ñu mën a ànd ak ñun euh, ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 mbokk yi ñëw ci bataaxal bi ala kulli xaal mbokk mbokk mi yónnee ko ko laaj euh, mbokk mi dafay gént gént gu ko jaaxal mu bëgg ñu indil ko ci ay leeral mbokk mi ne dafa gént Eh, di feey ci biir géej waaye neen daal dafa demoon sax mel ni kuy bëgg a lab ci biir ndox mi eh, waaye mujj na génn muy laaj ma bayaanu zalik mooy bu jëkk bi ñaareel bi neen dafa gént eh, ñu du di ko dàq-dàq yu metti nee na nag ñi ko doon dàq dafa mel ni ay agresseur lañu ñoo ko toppoon di ko dàq muy daw daw yu metti ba dugg ci benn kër nee na waa kër googu ñoo ko sawe almaau aw ilbahr kilahuma ala xaddi sawaay al insan ida daxala fi lbahri fa dalika xayrun wa fi lmaai fa dalika am na ku nekk ci ligne bi jël ko te ñëw salaamaaleykum allo bismillah sëñ bi ñu ngi lay ziar allo allo waa bismillah waaw kàdd waaw xam naa dinaa naat ñun bu baal bi gën a yëkkati ko tuuti dana gën a baax ñi ñëw ci ci fi ñu toll woon léegi xaarandi askan wi bi haadayni rahmayni xaalan mbokk mi ñu di ko wax ne rek ndox moom alal la rawat ne na géej boo ci duggee xéewal la soo ci sangoo xéewal la amaa nag ki nga xam ne dafa nekk ci biir ndox dem ba mel ni kuy bëgg a lab te labul dem ba ku ba mel ni ku bëgg a lab ci biir géej gi te labul yàlla def mu génn euh, lap ci biir ndox li muy tegtale mooy sa tajidu maalan bi suubatin adida wa bi mashakilin mutaadida fi xayaatik da ngay am alal joo xam ne boo koy joti danga koy jot ci ay jafe-jafe euh, balaa ngay balaa muy dugg sa loxo dafay metti ni nga ko yaakaare ak na muy ñëwee am ray ni muxtalifay ni day nekk ñaari mbir yu wuute ci nanga koy xalaatee ak na nga bëgg mu dikkee waaye daal na jàpp ni euh, nekk ci biir géej bay waaj a lab xat-xat la ci wàllu ama am masalan mu nekk borom koo xam ni kii ala kulli li muy xaar balaa mu ci jot day yéex wala waxtu ba mu koy xaare ak waxtu ba muy dikkee day nekk euh, lu wuute lool Euh, beneen bi ñi ñëw ci mbokk mi wax ni moom dafa gént di naaw te yoroon ay laaf zalika qul naa zalika miraran wa takrar illa an nukarriruhu xaalan altayaraan fi lxulmi al insan ida raa annahu yatiru fi ljawi biduni ajnihatin fa zalika umrun tawilun fi xayaati nit su géntee di naaw te yoroon ay laaf yi muy naawee gudd fan la gudd fan bu am solo sax ci dundam ñu ñu jël ki njëkk ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. allo waaleykum salaam wa rahmatullah. yàlla yàlla na nga yàlla yàlla na nga ziar alhamdulilah. bisimilah. amiin amiin yaa rabbal bisimilah. Euh, man dama amoon benn benn gént bu ma génnoon barki démb. Mm-hmm. maa ngi wootee Italie benn bu ma génnoon euh, barki ma ko mu mm-hmm. benn benn néegu ñax. Mm-hmm. Euh, maa ngi ci ci benn maam bu jigéen. Mhm. Euh, euh, léegi ma toog ñu toog tuuti rek guddi rek la ma genre ma jox daal ma toog tuuti euh, ñu ñu annonce ma dégg ma dégg ko annoncé di wax ni armée bi Italie daal ñu ñëw armée bi mu ngi ñëw te bu ñëwee day attaqué dëkk bi quoi ñu ngi dox nag Sénégal day attaqué dëkk bi. Mhm. léegi bi léegi bi bi mu waxee loolu rek ma gis nit ku nekk daw leen see kër quoi. léegi tuuti rek laa gis sama soxna ñëw andi benn paan ndox ci buntu ci buntu ci buntu néeg waa ma ni ma kaay jàppale mu dugal ko bi ma bi ma waxee loolu nag ci laa ñëw di ko jàppale mu yëkkati loxoom. Hmm. di ko mi ci la yëkkati paan bi ci la yëkkati loxoom bi nga yëkkati rek laa laa laa koy yóbbu nag parce que da da ko ndox mi tóoru mooy ci laa koy yóbbu naan ko nag wàccee wàccee ko wàccee ko yow dara ñëw la parce que euh, armée bi mi ngi ñëw du ñëwee fii ñëpp dañ ñuy rey. ci la ko jàppale bu dugal ndox bu duggee nag moom bu yéeg ne ci kaw lal bi sama maam bi moom nag mu tëj bunt bi fay lamp bi daal di tëdd ci suuf dé ci biir géej gi daal xam naa ne ñaari nit la mat rek armée bi ñëw ci armée bi ñëwee lañ puus bunt bi ñu puusee bunt bi fekk na man ma ko robbee ko ci euh, bi ñu puusee suuf ñaareel rek ma waxee loolu moo tax on se gerte ñu seetaan loo ji bi ma waxee loolu rek ci laa dégg ñu ubbi robinet bi ci ndox mi di tuuru quoi. Mm-hmm. bi ñu ubbee robinet bi rek ci laa yeewu te ma jaaxle ci géej mm-hmm. bi ma yeewoo na. moment boobu mu euh, ma yeewoo dafa mel ni dañoo rob ci suñu picc mu jiit lool. Mm-hmm. loolu sax ba léegi dafa des man ba ci dem ba léegi bi daal maanaam mu mel ni nga xaw a kii. da tiit. laata may nelawaat am naa ay jafe am naa ay jafe-jafe daal. léegi bi ko tëtaatee ci laa génn di xaar seen Abdou Karim Mbacke ci même jour ci laa di ci saal. Mhm. ñu ngi mel ni ku nekk ci ci euh, wanag yi maa ngi dégg ndox mi di xellee ci laa ci la ci laa naan mbooloo mi ñun de dafa mel ni euh, amuñu la saal dañoo war xaar sëñ ba mu génn ci wanag bi di doog ci biir saal bi waxee loolu la sëñ bi ñëw rek ma ñëw gumi mhm. may ñaanal ci biir génn rek maa ngi sama benn xarit yónnee xaalis bu bari lu ko koy jox mhm. yaakaar naa bi moom xanaa lu tax du ci la sëñ bi wootalee six mille mhm. euh, tournewaat jël cinq bi bàyyi ko ci mille la la waaw xam naa dina àndaat ak ñun gën ñoo leeral ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum waaw kon xam naa dinañu ànd ak ñun léegi ci ligne bi incha allah xam naa ne li des ci gént gi dina woote waat euh, man ko leeral incha allah allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa allo waaw bismillah Mm, waaw moom nga waxal ni dégg ma bu baax waaw mm. melentaan ma mm-hmm. gént mm-hmm. mm-hmm. ay melentaan yu ñuul fekk waaw. beneen waaw ñu may jox gerte. mu ànd ak Mm-hmm. Mm-hmm. allo waaw bismillah waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah shukran ما زلنا حتى الآن في انتظاركم كالعادة بدقة وسرور بهذين الرقمين حالا حيثما اتصلتم بنا إن شاء الله 88 628 04 05 ولا 88 628 65 65 ñu leen di xaar ci numéro yooyu xaalan incha allah waaye du tee ñi ñëw fi ñu toll woon ci mbokk mi ne génti ñu di ko dàq dàq yu métti mu jaaxle ci loolu mu bëgg a xam ma bayaanu zalik gént ñi dala dàq nag mina soabatil adidati baaxul gént ñi dala dàq ngay daw mooy loo am du toog sa loxo loo yaakaar balaa nga ci jot day métti koo jëflanteel commencement bi demee ba war a taxaw commencement bi mooy taxaw mi mujj bi day bari xat-xat mooy gént ñi dala dàq baaxul waaye nag sopp nañu su ko nit ki gisee ci géntam nga gën ñaari paquet suukar eh, jox ko góor jëli yeneen ñaari paquet suukar nga jox ko ku jigéen mu nekk sadaxa boo xam ne bi dafay féete ci ñaari nit ñaar ñu góor ñaar ñu jigéen muy la am solo lool ñu jar ñu bàyyi ci xel eh, beneen bi ci tegu mbokk mi woote ko di ko laaj mbokk mi neen dafa gént doomam di futbal ba ñuy damm tànk bi wala boog ba tànk bi damm muy laaj ma bayaanu zalik beneen bi it nee na nee gént na gis doomam boobu ba tey eh, mu dugg ci oto di ko dawal tànk bu damm baax na baaxul baax na bu fekkente ne dammewul ci football su dammoon rek fekk na du football moo ko damm la kaana xayran anhu doon nekk xewal ci moom doon na nekk yiw ci moom waaye fa mu dammee ci football bi moo baaxul benn muy ñaaral bi e, li mu wax ne da ko jaaxal lool e, ci doom ji muy gént di dawal oto gént di dawal oto su fekkente ne alwalad awil awi tifli awi shabi lam yablug sinna zawaj fa dalika xayrun anhu fa ida balaga sinna zawaj fa dalika yadullu ala annahu xaalan inchaa allahu sa yaqumu bi zawajin aw yajidu eh, imraatan yatazawaju anha gis nga gént sa doom bu góor di dawal oto soxna la mais doonte nag takkagul soxna sax waaye ñu bàyyi ci xel soxna la boo xam ne mën na ñëw ci dundam lu gaaw lu yéex léegi ci kanam waaye wa ala kullin ak lu mën a am na bàyyi xel ni daal soxna la ci doomam bu góor boobu allahu alam ban waxtu la ko yàlla di indi ak buy ñëwit it lay tëddee ñu bàyyi xel ci loolu fàttali askan wi numéro yi 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént moom it lu ko jaaxal kii neen dafa gént nekk ci benn néeg néeg bi nag néegu ñax la nee mu gis maamam bu jigéen mu mel ni dafay dafa gént armée bi di ñëw ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal jóg ku ci nekk dugg sa nekk ngir ragal armée bi wala boog ngir nëbbatu armée bi beneen bi ci tegu nee na jab soxnaam ñëw na indi paanu ndox ñu jàppoo ko ñoom ñaar dugal ko ci biir nee na génte ne di wax aoudu billahi min asheytan arrajim nee na ci génte gi daf ci tiit tiit bu metti mu jaaxal ko lool nee na it dem na ci kër sëriñ Abdou Karim Mbàkke toog ci saalam xaar ko bu mu génn mu ñaanal ko muy mbir yoo xam ne benn bokk ci ak moroomam awalan gént ñi ne la armée ngi ñëw fekkiwul ne armée mooy ñëw waaye ñu jëkk ci liñ bi te ñëw salaamaaleykum waaw soxna si ñu ngi lay ziar. maa ngi dellu ziar. bisimilah. allo. allo waaw. Euh, suñu gént lay wootee. Uh-huh. bisimilah. Euh, allo. waaw bisimilah. Euh, sëñ bi ma yéeg ci benn oto. Mm-hmm. oto bu rafet bi nii. Mm-hmm. léegi maa ngi fa yére olof wàcce ci biir oto bi. Mhm. léegi après bi ma wàcc dama dem nag fu ma nekk bari na ay nit torop. Mhm. Euh, léegi dafa am beneen xale bu góor bu wàcc ci oto bi mais gént gi dafa ma jëlee comme si moom sama jëkkër la mais ñun ñaar liñ toogee fi nit ñëpp ñun ñaar waxante dara. Mhm. waa comme si ñun ñaar xamante wuñu daal. waaw loolu laa bëggoon laajte. da ngeen a bokk béréb bi ngeen nekk. waaw ñoo bokk fenn fu ñu nekk mais moom beneen jigéen la toogal daal. Mhm. mais ci gént gi daf ma jox comme si moom sama jëkkër la. Mhm. waaw. waaw. dinañ ci ñëw incha allah. Eh, shukran sanaati bi zalika incha allahu ñuy xaarandi askan ci numéro yooyu ñu tudd léegi incha allah. Mm, ngeen mun a ànd ak ñun ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 numéro yi bu ngeen ci woo rek xaalan di ngeen ñu jot incha allah euh, ñi ñëw ci mbokk mi fi ñu toll woon léegi nee dafa génte néegu ñax ak armée armée bu ñëw seen kaw ñu daw làqatu gént armée li muy teg tegtale mooy tekkiwul ne armée mooy ñëw waaye yow waaye yow yaay dugg ci ay mbir yoo xam ne balaa sotti day jafe ci yow ni nga koy xaare du sottee noonu balaa muy sotti daal di nga ci topp di nga ci wax di nga ci sonn lool mu door a sotti mooy armée bu la topp mel ni sa kaw la jëm si euh, beneen bi néegu ñax al baytu min oshbin fil xulmi xayrun min baytin jamilin gis nga néegu ñax moo gën foofu ci gént néegu taax walla néegu bâtiment bu rafet baaxul euh, ñu jël kenn ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah waaw soxna si. waa gént la bismillah.

سنأتي حالا ببيان هؤلاء الأحلام حالا إن شاء الله ñi ñëpp ñu tolloon léegi ci mbokk mi xaarandi askan wi ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 mbokk mi néegu ñax moo gën foofu néegu tabax bu rafet baaxul beneen bi nee na dafa nekk ci biir nekk Euh, soxnam ñëw jël paanu ndox paan root ko ba mu ndox ndox ba fees mu jàppale ko ñu dugal ko ci biir néeg bi paan bu am ndox xéewal la wax naa leen almaa u xayrun almaa u yusrun waa ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo waa xam naa dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti ñu ngi koy xaarandi ci ligne bi allo waaw dina ñëw ci kanam incha allah ñu ngi koy xaar ba tey mën na duggaat ànd ak àndaat ñun ama ndox. allo. waaw allo. allo oui. waaw soxna si. waaw bismillah. waaw. Mhm. waaw bismillah. waaw mhm. waaw waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. ñu ñëw fi ñu toll woon léegi ci ndox mi baax na ndox ci paan baax na jàppoo ko dugg ak sa néeg yiw la ñu jël kenn ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum. salaamaaleykum waaw dama moo di génn bu mm-hmm. dama toll diggante. Mm-hmm. wante dama gént euh, toog ji jékki-jékki génn sama néeg jàkkaarloo ak sama jëkkër euh, doom sama doom bi ma ëmb mu génn. Mm-hmm. te dama ko. ma téye ko ci sama loxo yóbbu. ba noonu bakkanam yem si. kan la ci bakkanam yem sa doom la. waaw. Mm-hmm. kii juddu kii kii génn te dama tagul. day door a judd. waaw ci gént mu toll nii dama toll diggante. Mm-hmm. léegi dama mm-hmm. yem ci sama loxo. waaw léegi ñu xaar tuuti ci kanam ma gis mbooloo bu bëri ñu yegg sama kër. ñuy togg. ñuy togg ay ceeb ceeb yàpp. mbooloo mu bari waaw mais xaw ma leen. Hmm. ñu teg di lekk ma leen may yu di leen naan yéen kii muy doog juddu. Hmm. ñàkk ba kanam ngeen koy lekk. bu hmm. tax ngeen koy lekk waaw. ñaanal laa bëggoon ko ma firi. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf. jërëjëf. shukran ma zilna xata al aana fi intidaarikum ala kulli xaal bi haadayni raxmayni xaalan ida tasaltum bina incha allahu ngeen mën a ànd ak ñun ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala 00 221 33 841 22 99 pour waa bitim réew ñu bàyyi ci xel beneen bi mbokk mi ne dafa gént mbooloo mu bari mbooloo rahmatun qulna dalika miraran wa takrar aljamaatu fi lxulmi rahmatun ama nag li mu wax ne day doon gént di wax aoudu billahi min alcheitan rajim kooku dafa baax di ko wax guddi gu nekk balaa ngaa tëdd aoudu billahi min alcheitan rajim xewul gu bari mi ngi ci dina ci ñëw incha allah beneen bi it nee dafa gént euh, ci biiri nalaw euh, muy xaar Serigne Abdou Karim Mbàkke ci Saalum bu ñëw mu ñaanal ko euh, fa taajaba bi daalik nee na mu yéem na lool ci moom ba tey waaw ñu jël ko ci ligne bi te ñëw ci laaj bi incha allah salaamaaleykum wa allo allo. allo oui. waaw bisimilah. waaw bisimilah ñoo la ñuy déglu. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waa waaw. waaw man damaa waaw man ne yow la ñuy déglu bisimilah. waaw dama géntoon mais nag xaw na yàgg tuuti. Mm-hmm. ma gént dem si teenu maam li maamu mm-hmm. léegi bi ma demee si teen bi ma toog noonu si si kiiwu teen bi si wetu teen bi. Mm-hmm. mais fi ma toog noonu euh, ndox bi dafa bëri ndox foofu ma gis. benn lumière bu jógee ci kaw asamaan bi mhm. dal ci dal ci suuf léegi lumière bi dalee ci suuf noonu mhm. ma ne waa li moom jant bi moom moo dal ci suuf de mhm. ñu ne am ku nekk ci kaw di wax ak man maam bu nekk maam ni maamu laay muy wax ak man ne ma ñu waxtaan bu waxtaan waxtaan li mu waxoon ak man na xaw naa ko fàtte mais dafa jég saay waddal caat bi caat bi jógee ci kaw leer ci kaw asamaan si wadd ma jëlal caat bi ba joxal ma ko sama doom léegi man ma jël caabi bi dem di ko joxe ci doom ji mais bu jéew maa gis doom ji su ma mhm. demee dañ ma ne doom ji dafa am ku muy faj yeneen mhm. bi mhm. damaa gént di dox di dox di dox di dox man ak sama yeneen ñaari xarit ba si yàgg ma gis ay gaynde yu bëri léegi bi ma gisee gaynde yi ma ne sama xarit yi ñëw leen ñu dem gaynde yi duñu def dara ba si yàgg rek benn gaynde jub ma ko. Mm-hmm. jox ko yàpp boo ko joxee yàpp rek dinañu bàyyi léegi ñu sànni ko yàpp bi après ma dem. Mm-hmm. beneen bi sama mag bu góor moo gént may may dawal fas di daw di daw yéeg ci kaw fas bi di ko daw di ko daw di ko dawal ba si yàgg ma wàcc fas bi yéeg ci vélo. Mm-hmm. di ko dawal di ko dawal di moo doon dawal ba rek yow. man waa maa doon dawal fas bi. lu may dawalee fas bi ba pare ba wàcc ci fas bi. yéegal yéegaat ci vélo bi di ko dawal. Mm-hmm. beneen bi sama mag bu jigéen moo ko gént nee na. Mm. dafa gént ñaari yoon ñu koy may daal. Mm-hmm. waaw loolu laa bëggoon nga firil ma. sa mag bu jigéen. waaw sama mag bu mm-hmm. koy may daal. waaw ñaari yoon ñu ko koy may. baax na. dinañ ci ñëw incha allah allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar. alhamdulilah ci Firi Gueye bi laa doon laaj. waaw bisimilah. waaw sëñ bi ñu ngi ziar. yal na yàlla nangu ziar. waaw dama doon laaj gént. Mhm. di jàng sóoratu Yaasin. Mhm. di jàng sóoratu Yaasin di ko tajwid ci mbooloo. waaw bi nga ma maa ko doon jàng ci mbooloo ci ci ay misaal ci mbooloo waaye war naa am ay suñu benn à peu léegi nag am na ñeneen ñaar ku newoon sama wet. di ànd man ci taj bi di kooku moom mi ngi yoroon téere. waaw ñoo pare laa ko xool ak ak beneen waaye tamit ñu toogoon nañ di maa doon jàng daal boo neexal moom. yow rek yaa doon jàng. man maa doon jàng suñu tuyaat ba ba nañ jeex. waaw man leer loolu daal la. baax na baax na incha allah. dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf. Euh, shukran ñu jël keneen kii ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa waaw soxna si ñu ngi lay ziar. Hmm? Hmm? waaw. nag moo ko doon dàq. Hmm. voilà léegi ma xaw a sa sët bi waaw moo ko topp pour jëli ko mhm. Mhm. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah jërëjëf euh, su ko defee ñi ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom di ko laaj bëgg ñu indi ci ay leeral euh, bu njëkk bi waxoon nañ ko léegi muy mbokk mi nga xam ni dafa nekk ci néeg bu rafet te néeg bu rafet euh, baaxul al bayt min ashbi afdal min wa ajmal min baytin jamilin fil mi néeg bu rafet baaxul gente di dàq seytaane yiw la ku génti di wax aoudu billahi min cheytaan rajim ba yeewu xéewal la beneen bi gis kilifa diine mu ñaanal la xéewal la beneen bi kii naa dafa gént ay melentaan yu bari ci kaw yaramam melentaan yu ñuul yu bari yooyu soo leen gisee sa yére ñi bari lool wala sa yaram wala sa néeg wala sa lal wala sa place jàppal ne wërsëgu yaatu mi ngi ñëw ci yow xéewal gu yaatu mi ngi waaji ñëw ci yow nga naxtaan ak ñoom maslaha ak ñoom ba dem moo gën euh, muy lu jara xel beneen bi neen dafa gént day gént lu bari gerte amma yataallaq anil fustox qul naa dalika miraaran ru'yatul fi lxulmi yadullu ala taabin kabirin wa mashakilin mutaadida fi xayaati l insan euh, gerte bu ñor ba baaxul su ñorul baaxul suñ la ko mayee baaxul soo ko jëndee baaxul gerte daal bokk na ci xat-xat yi gën a tal xat-xat yi gën a metti xar gerte ci la bokk nañ ci bàyyi xel muy lu jara bàyyi xel eh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént war fas fas bu rafet eh, muy dox an nekk ak fas yi nekk ci biir mbooloo nee na li ko gën a jaaxal nag mooy tasawul ak keneen mu ngi toog moom kenn ak benn ku jigéen loolu moom moom lay jëkka laaj mooy bu jëkk bi eh, war fas di ko dawal bu dee ci ku góor soxna la su dee jigéen moo ko war day indi su tafaaxum bayna imraatin wa imraatin day indi ñàkk déggoo diggante jigéen ak jigéen ñu bay ci xel Euh, mbokk mi ne dafa gént moom it euh, ci dem ci sëgu jàmmalaay yi neen mu fi demee mu gis maam li mu amu laay euh, qulna dalika miraaran ruyatul awliyaai wa saalihin fi lxulmi xayrun wa yusrun wa fatxun wa najaax gis nitu yàlla yu baax yi daal ci gént yiw la aaju gu faju la macha allah am na solo lool ñu bàyyi ci xel beneen bi mbokk mi ne dafa gént moom it yee gis ni dafa gis ginaar bu jigéen mooy bu jëkk bi benn bi ne dafa gént di naaw ci jaww ji gént di wax nañ ko léegi miraaran euh, amron tawilun fi xayaatil insaan guddi fan lay indil nit amaa nag dajaj awi diig gert ginaar bu góor wala bu jigéen li muy tegtale mooy ba moytul fi nga dëkk dina bari coow dina bari ñàkk déggoo fitna dina bari xiiroo ak ŋaayoo dina bari seen diggante muy ma bayna diiki wa dajaajati ci diggante ginaar bu góor ak bu jigéen baaxul nañ ci bàyyi xel euh, benneen bi mbokk mi neen dafa gént gént du ko jaaxal muy laaj ma bayaanu zalik Eh, kii naan dafa gént moom it eh, nekk ci béréb boo xam ne bi béréb bu kéemaane la nee na ndax dafa gént nekk fu kawe ci benn kër bu am na étage la eh, te moom dafa ëmb mu mel ni dafa am doom ji dafa génn ci anam yoo xam ne yi gënul te gisul fenn fu mu ko yore muy bu jëkk bi muy lu jar a bàyyi xel bari aana lu nit di tollu diggante di gis yi mel noonu ci ëpp nag mbir rab moo koy def rab mooy def soo ëmbee mu lay feeñu di la wan yu ragallu di la wan yu tiitallu yoo xam ni du dal sa xel ba saa yoo tëddee doon doon nelaw muy lu jar bàyyi xel waaye ñu la koy ñu ngi koy digal guddi gu nekk balaa tëddati na jàng wali suleymaana reyxa guduwaha shahrun wa rawaaxuha shahra waxoon nañ ko fi nañ ko baamtuwaat incha allah eh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént ay gaynde yu bari gént gis ay gaynde baax na nee na mu ne nañ wuti ay yàpp jox leen nee na gént ne dawal fas dawal daal ci góor soxna la nañ ci bàyyi xel Euh, beneen bi ci tegu nee dafa gént di jàng suratu yaasin qiraatu suratu yaasin yaasin wal quraanul hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqim qiraatuha fi lleyli xayrun wa yusrun wa fathun wa taqaddumun min jami nawaxi gént di jàng yaasin ci gént law kunte fi diqin shadidin donte da nga nekk ci ay xat-xat donte sax da nga nekk ci ay tolof-tolof waaye donte it da ngay séentu loo xam ne jotagoo ci jàppal na yàlla dina ko sottil te loolu ngay séentu incha allah di ci jot ca na mu gën a ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi mbokk mi ne dafa génte moom i tamit euh, benn lu mel ni sëtam di ko topp waaye lu ndox dafa nekkoon ci loxoom waaye ndox mi dafa mujj daanu ci ni ko waxee euh, dinañ ci ñëw léegi incha allah gën koo leeral euh, beneen bi mbokk mi ne dafa gént gént gu ko jaaxal moom itam muy laaj ma bayaanu zalik ndax gént gi dafa yéeme lool ci moom muy laaj nu mu tëddee mbokk mi ne dafa gént di xeex xeex bu metti ak mbokkam ak am di jàmmam koo xam ni kii kóllëreem la wala boog mag la ci moom wala rakk ci moom Euh, waaye daal ku ko jege la ñu xeex ñoom ñaar xeex bu metti alxitaal bayna al ixwaan aw alxitaal bayna rajulin wa rajulin aw alxitaal bayna imraatin wa imraatin yuaddi ila tafaahumin kabirin wa euh, tadaaxul fi ma baynahuma gis nga gént di xeex ak sa frère wala sa mag wala sa rakk wala sa xarit déggoo bu mat sëkk lay indi jàmm ju bari lay indi day dàq fitna donte ñam ñaar neexoo ñu sax yàlla ci mbaaxam mën naa am fu mu leen dajale ba ñu neexoo jubo ci seen biir ala kulli xaal muy lu jar a bàyyi xel beneen bi ci tegu mbokk mi daf ko woote di ko laaj kii ne dafa gént jàpp doomam di ko dóor dóori metti ne da ko yónne woon mu am lu mu ko jëndee li mu jaxase loola nee na xale bu ñëw mu dóor ko dóor yi metti euh, ci gént gi ba sax moom dafa ci xaw a tiit ci dóor yi muy laaj maa bayaanu zalika fil xulmi gént dóor dóor doom boo jur su fekkente ne yaa jur xaqan sa doom la nga door ko dóor yi metti yooyu boo moytuwul doom ju nar a bari alal lay doon soo moytuwul doom ju nara yàlla nar a doon soo moytuwul it doom juy nangoo dimbali waay juróom lay doon muy lu am solo lool maa baynal walat wal waalida eh, mu nekk ci diggante doom ak waay juróomu jigéen ñu bàyyi ci xel bu baax muy lu am solo lool beneen bi ci tegu nag mbokk mi neen dafa gént eh, nee na fi muy liggéeyee la gént ñu dàq ko fa ne ko licencié nañ la wala boog bàyyi nañ la wala amul dootuñu la jël nga liggéey wala dootoo fi liggéey mu jaaxle ci lool nit sooy liggéey béréb gént ñi na dañ laa daax jàppal na béréb bi da nga fa yàgg nit soo sumbee dara am ci jafe-jafe am ci ay tolof-tolof ni nga ko yaakaaree demewul noonu takkal sa ndig nga defaraat ko yàlla mën na ci def xéewal bu yaatu wa ma zalika ala allahi bi aziz ñu bàyyi ci xel bu baax beneen bi ci tegu mbokk mi dafa gént moom it waaw nee na dafa gént yaayam la gis bi ko jur mu def yaramu neen maanaam solul mbubb nekk ci biir kër gi toog nee na mu jaaxle ci lool muy laaj ma bayaanu zalika gis nga ñàkk saluer sawaan inda alrajuli aw inda almarati kilahuma ala xaddi sawa almara in lam talbas sawban fa zalika yadullu ala maradin xatirin fi jismiha wa kadalika alwalid wa kadalika altiflu kilahuma ala xaddi sawaabi ala kulli xaal gis nga nit su solul yére wére di yaram la bu dee mag wéeru di yaram la su dee xale wéeru di yaram la ala kulli xaal ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi dafay laaj moom it laaj bu ko yéem kii nee na dafa gént jinne di ko dóor dóor yu métti ba muy yuuxu ci guddi gi nee na jinne la gént mu di ko dóor dóor yu ba muy yuuxu yuuxu yu métti ci guddi gi day daal di tibb te euh, daal di tëb ci guddi gi ànd ak tiitaange bu metti nee na loolu bari na lu mu koy dikkal lool te muy la daal ban saafara moo ci baax ak ndax loolu baax naam baaxul gént di tiit baaxul baaxul ci góor baaxul ci jigéen baaxul ci xale baaxul ci mag kon nañ ci bàyyi xel li koy dindi nag mooy ngay def guddi gu nekk bala nga tëdd nga jël sa kurus nga wér de wasamaay wa taarix 66 fois wasamaay wa taarix juróom-benn fukk ak juróom-benn nga wér de ko incha allah tiitaange bi ngay tiit guddi ak xat-xat yi ngay am guddi yëpp yàlla ala kulli xaal dina la ko teggil bi ahsanil wujuhi ñu bàyyi ci xel Euh, muy lu jara bàyyi xel nag ala kulli xaal parce que am na solo lool beneen bi mbokk mi ne dafa gént du julli waaye benn rakka rek la am sëlmal muy laaj ma bayaanu zalik euh, gis nga waxoon nañ fi miraaran al mar'u ida salla fi lxulmi bi rakaatin waxidatin walam tatim rakkaat Ah, fa ma fi dalika xayr gént ngay julli te matalewoo li ngay bëgg julli baaxul nga ñëw julli waroon na julli ñaari rakk wala yéema demee noonu wala ñeenti rakk nga julli benn baaxul ci gént li muy tegtale daal mooy euh, say mbir day bari sooxe sooxe say mbir day bari sooxe sooxe waaye day bari jafe-jafe lu muy lu jara bàyyi xel beneen bi mbokk mi ne dafa gént jënd dàll yu bees daal di carax yu bees may ko ki muy bëgganteel mbokk dafa jënd daal carax yu bees may ko ku jigéen ku muy bëgganteel nit soo bëggee jigéen nga jël say dàll carax walla nga jënd yu bees kilaaxuma ala xaddi sawaay dem ba ci moom jox ko hadiyatan soo moytuwul diggante bi dana am xat-xat soo moytuwul sëy ba dana yéex soo moytuwul nañ ko bëggee du demee noonu te it sëy bi mën naa yéex mën naa bari ay xat-xat lool mooy nga gént jënd ay dàll dem di ko jox ki nga xam ne kii danga koy bëgg du lu gën euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént moom it gént gu ko jaaxal muy laaj euh, ma bayaanu zalik mbokk mi ne dafa gént doomam bu góor waaw nee na dooma bu góor la gént muy football ak i moromam nee na mu mel ne dafa am lu ñëw rek këf ko ci biir moromam yóbbu ko nee na muy yuuxu topp ci di daw waaye gisu ko fenn nee na bu mu jógee ci nelaw yi sax dafa xaw a tiit ndax ni mbir mi këfee doomam yóbbu ko mu jaaxal ko lool gis nga doom bu ko dara këfee yóbbu ko jëmale ko kaw utrukhu bi yadillah bàyyi ko ci loxoy rabbu samawati wal ard asallahu an yabasa alayhi maqaman mahmud yàlla mën na ko indil ay xéwal yu mag waaye fa mu nekkoon fa mu nekk balaa fa jóge ba ñëw incha allahu ñàkkul lu yàlla nama def ci moom ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént moom it mu bitik la yor di jaay neen day day jaay bitig waaye day def saa ñëwee rek eh, day fekk ay nen ci bunt bitigam wala ay yeneen mbir yi kenn mënta tudd nee muy laaj ma bayanu zalik gis nga soo géntee ñu jël ay mbir yu mel noonu takk sa bunt nekk eh, du lu gën waaye jëlal bant rek nga jàng wa samay wa taarix puus ko def li ngay def daal di dem continuer sa liggéey amaa nag bu béréb bi ci boppam bu fekkente ne noonu la tëddee euh, war nga soo ko mënee nga génne sarax ci biir place bi ci biir bitik bi wala nga woo ay nit ñi defal la kaamil alxuraan ci biir bitig bi ndax yàlla man la sowe dimbali la génne la ci xat-xat yooyu ngay dund ala kulli xaal su ko defee ñu bàyyi ci xel mbir maa ngoog ala kulli xaal Euh, laaj yooyu la fay mbokk yi indi woon bëgg ñu indi benn bi ci mujj nag xam naa ne moom dina xaw a xat ndax waxtu wi dab nañu pour ñu man ko tontu boroomam ndax kii neen dafa gént euh, ñetti fas yoo xam ne benn bokkul ak moromu couleur mu bëggoon ñu indi ci ay leeral waaye dinañ ci ñëw incha allahu euh, xam xam naa waxtu wi xat rek ndi ko dinañ ko leeralal loolu muy laaj incha allah. mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziyaara ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel saasu na ci waxtu wi ñu ngi ziyaara sunu xarit sunu kóllëre eh, Adja Soxna Ba Adja Mati Ba malik Ba Ndiku Fall Adama Ndiaye Mansour Mansour Sarr di ziyaara Sizane Ndiaye ak Awa Ndiaye ñoom ñëpp fàttu maam liisun eh, Cheikhna Soumaré Ndey Fatou Soumaré Idrissa maam seeni ak Jibi Bachir Ba Caane Jaañ soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara Kéema Jaxabe Alaaji Jaxabe Mouhamadou Mbay ak soxnaam na Mbay mu jibu lay moo di Njaay commissaire ñu ngi koy ziara ak maxataan ci Italie di ziara ba tey docteur ak soxnaam Aminata Touré Abdourahmane Mbacké Fadima Tall ñoom ñëpp fàttewuñ leen waaye di ziara ba tey Sëriñ Masamba euh, di ziara it Abdourahmane Mbacké Elisabeth Sagna monsieur Sagna Bintu Ñang Adja Soxna euh, Guèye ñoom ñëpp Awa Diaw Abbas Gadiaga fàtte wuñ leen fàtte ki ne yadd Mouhamadou Moustapha Yaali ñoom ñëpp Roqiyatu Diop ca Yoof Ndëngaan ñu ngi koy ziyaara bu baax Sali Sané Castor Castor ñu ngi koy ziyaara bu baax Sali Sané ci Castor di ziyaara Adja Soxna Mati Adja Soxna Mati ci cité des des magistrats Soxna Euh, Mati Diaw ci cité des magistrats ñu ngi leen di ziyaara baax di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko képp ku yeewoo ci réew mi bi jaahi nabil karim allahuma rabbi ya ilahi salli ala nabiyika wa habibika wa rasulika ya ilahi salatan taftax lana biha ababa rida ilahi wa taysir wa tuxliqu anna biha ababa shar wa tasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin